bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk ñu ngi leen nuyu leen ziar ah, fas yéene ñëw nag ci ak càlla la goo xam ne dañ koy tàmbali ngir leeral ay lënt yoo xam ne ku ñuy wax Daawuda Jaawara di ku néew xam-xam rawat na ci bunt bi muy waxee moo ko waxati ay ndéggat la nag yu xaw a bari yoo xam ne xam naa dañ koy def benn far benn ba mu yàgg te bari ay lënt waaye na xéewal la ndax danañu may ñu jàngal jaawara lan mooy al aqidatul ashariya moom mboolem ñi koy déglu danañ ñu may tamit mboolem sos yu bari yim yim def ci ndéggat yooyu tam tañ bari lool nag sosal ko asaari yi ñu leeral ko waaye danañu may tamit ñu xam le ni kii xamul dara dara dara ci al aqidatul ashariya ba mu leer ci bopp képp koo xam ne dëgg la daa dëgëru fit di wax rek xëy na boo ko réegi muy wax sax da xam ne ab téere lay téere boo xam ne benn waaye ci lëntal moom la yor di jàng waaye moom sax li muy li muy wax foog naa sax du ma ko gisul boppam waaye ka dellu sax moom ci xam daa lëntal bu fekkee li jaaware wax lépp ci téere boobee la ne dañ ko leeral ba leer nañ ci boppi ñëpp waaye bala ñu ci loolu ñu tàmbalee ci li nga xam ne ñun suñ bopp suñ jëmm nun la ko noonu la ko noonu la ko noonu la ko noonu la ko sosal euh, xam naa ñu déglu ko mu tàmbalee leeral li mu ne moom lan def noonu ci téereb ibnu muflix alxanbali ak ci téereb alxalal yeneen gis ne fii nii mbokk mi nga xam ne moom lay radd leena moom dafa jëlee waxu abu yaala wala keneen kii xaw ma ibnu batta dafa ne jaddi nee loolu xamle dans sanadu boobu wér na wala wérul yaani dafa bëgg di wax jooju parce que moom xamle ndax sanadu bu wér na wala wérul mais soo xoolee diggante Abu Yaala ak diggante Imam Ahmad nga xoolu diggante Ibnu Muflih ak diggante Imam Ahmad <laughs> dangay fekkee ne abu abu eh, abu Yaala moo gën a jege fof ko ay ibnu muflih mais moom ñëw na si waxu ibnu muflih nee na wa qaala imamadu fi riwayati hambal léegi diggante ban sanadu moo nekk diggante ibnu muflih ban sanadu moo nekk diggante ibnu muflih ak ak imam ahmad kon loolu ab tanaaqud la bi nga xam ne dafa nekk si ahlul bidaa tayib Euh, ñàkk am xel dana yóbbe nit maanaam koo wutum xel li woon ci yow nga noppi waaye boo duggee ci di jéem a leeral rek daanaka day gën a compliqué ci yow euh, jaawara li Moustapha doon wax da caa xamut lu bari ba noppi di ko jéem a leeral man waa ji bi indee wax ji ci Abu Yaala dama ne ko ah kat sanad ci boppam buñ ko xooloon mën naa am jafe-jafe waaye nag nañ la jéggal loolu nañ jàpp ne wér na te ni xas ndax bu wéroon lu ci tege jaawar dëgg ci lool ne Moustapha kat daa bëgg a wax ne waa ji sanad yi wérul ba noppi moom ci boppam mu indi loo xam ne amul sanad kon Moustapha dafa tanaqut foofu loolu nag ak gàtt xelam képp lay wane foofu wala sax ak ñàkk dégg wolofam benn déggul wolof walla xel mi guddul xel mi nag moom xam naa ne guddul moom ndax boo seetloo li muy wax lépp da ngay seetlu gàtt xel gi ci ni muy firee yëf yi euh, man damaa li wax joo xam ne mi ngi ci al aadaabu sharciyatu libnu muflix alxanbali bi ma ko nettalee ba noppi ma ne xalaal indi na sanad bi ba ca Ahmad kon loolu ku dégg wolof da nga xam ne Moustapha Kane wax jiyee mu doon wax ci Ibnu bëgg wax ne riwaaya bu am sanad la ku wolof laa da nga xam loolu waaye malheureusement ngóor si déggu ci loolu da dégg ne Moustapha ko bëgg a def ñaari riwaaya benn loolu aw sos la mu déggaat ci ne Moustapha daa daa daa sikkalal si ak ñàkk sanad ba nag wëlbati ko indi lu amul sanad ki nga xam ne daa am lu mu nekk lu ne ci téere demaat ci beneen téere boo xam ne loola ma nga fa ak sanad ba mu ne xalaal indi sanad ba ci ahmad xalaal nee na ahmad nee nga daal ne léegi Moustapha daa tanaqut te Moustapha moom lee mu doon wax ma ngi koy yëmutulub sanad moom ma ne yaakaar naa bu amee ku war a dem hôpital Fann ci ñi si war a jiitu nga bokk yow ci sa bopp ndax ñàkk dégg wolof doy na waaye ñàkk sukkandiku ci ak ñàkk dégg wolof di tuumaal nit ñi nag loolu moom daa ëpp moom eh, ñu dégluwaat saa njoogu moo waxaati te eh, gisoo fii tamit ba muy ñëwee si xalaal mu ne xalaal wax na ne Ahmad nee na léegi ana sanadu bu nekk diggante xalaal ak imaam Ahmad est wax na ko fii nii tamit am na benn tadlis bu mag bu Moustapha def imma jaahil la xamul sax lan la borom xam-xam yi tegalee seen téere yi walla lan la ñuy wax wala moom moo ko tey. gis nga fa muy waxee noonu si xalaali nee na xalaali indi na ko mooy riwaaya bi nga xam ne moom la ibnu Fulayt ñu indi mais moom peut-être xam na loolu mu bëgg yaatal riwaaya mu daal di dagg mu daal di effacer xambal mais soo demee si téere xalaal waxu jooju moom la wax indi dine fii riwaayati xambal waxu jooju soo demee foofu ibn eh, eh, eh, xalaal dafa ne xambal nee na mais Moustapha dafa ñëw di dagg xambal bi mu ne xalal nee na pour gëmloo nit ñi ne waxu ji ñaari riwaay ñaari façon riwaaya la ɓi riwata hamba hambal euh, beneen bi riwata xallaan loolu loolu it aw sos la Moustapha mos ta loolu xelam sax mos nekk ci loolu ci laa ko mos a dégg wax noonu nag aw sos la woo xam ne mi ngi basé ci sos bu njëkk mooy defee ne Moustapha daa wax jooju noonu bàyyi ko noonu te fekk wax njëkk ji Moustapha bu mu ko waxee itam daa demaat ci beneen téere di indi sanadu wax jëm njëkkoon a wax bu mu koy indi nag la tudd xallaan ba ma nee xalaal indi na sanat bi ba ci ahmad rek nga nga war a xam ne sanat bi buñ ko waxee bu nit waxee ba ay wax ba noppi daan xalal indi na sanat bi kon war ngaa xam ne waxam ju njëkk jee lay wax ne sanat bi moom la xalaal xalaal indi xalaal nee na ahmad nee na nag amul problème mu ngi mel ne da nga ne buxaari yu nee na bi nee na waaye tudd na sanat bi tudd sanat moom lu ci yoonam ginnaaw moom nee na la indi na sanat bi kon kay dee saa yow xam nga ne am na sanat Moustapha nee na la xanaa indi sanad bi kay kon kay moom tudd na ko tudd ko moom daanaka amul solo bi mu nee la sanad bi itam xam nga ne lee mu doon nett ci Ibn la lay wax sanad bi sanad bi ci wolof sanad bi maanaam bu nit waxee ba noppi ne indi na sanad bi diw indi na ko mooy kon sama wax jii may wax laay wax ne sanad bi diw indi na ko kon xam nga ne jenn wax ji la ba Hanbal bee mu doon wax ci Ibn Muflih laa wax ne xalaal indi na sanad bi te loolu leer na ci wax ji nañ ci ñuy dégg wolof nag laa wax waxuma ne ñi nga xam ne dañoo dëgëru fir te am yéeney weddi te seen xam seen xam-xam matewu ko kon defe naa ni li may faral di wax gone wahabi yi rek laa lay wax mooy waxi Moustapha jéem koo weddi moo gën a yomb weddi ko jéem koo weddi moo gën a yomb fuuf weddi ko euh, kon wax gi nga wax ne da doon jéem a wane ne ñaari waaye loolu loolu du dëgg ku dégg wolof tamit te dégg te déglu sama audio yi nga xam ne loolu du dëgg man damaa wax ibnu muflih alxanbali ba noppi nes xalal inna sanad bi ba ci ahmad nee na nee na ki waxi ba noppi nag ne la sanad bi diw indi na ko kooku nan lañ mën a waxee ne daa bëgg a wax ne wax ju bees yi bokkut ak loolu ak ñàkk dégg wolof la sa ñàkk dégg wolof gii nag wax dëgg yàlla euh, man teguma la ko boo ma ko bëggee sippi euh, yaa ngi may tooñ ndax man fi ne <laughs> sa ñàkk nga ñàkk digg ko def tax na nga di ma sosal loo xam ne man waxuma ko mosuma ko xalaat ci yow laa ko dégg waaw ñu dégluwaat l'acteur de cinéma. leerale te moom peut comprendre loolu tamit mooy ki istilaalu aaya bi mu def ko imam ahmad loolu tamit wérul waxu jooju sax du imam waxu imam ahmad mais nit soo xamul teer yi xamul waaw waxaat na geneen njaaxum nee na ci istidlaalu aaya boobu muy wajaadilhum billati billati hiya ahsanu kooku du wax imaamu ahmad maanaam bokku ci riwaaya bi daal eh, damaa defee ne nag yow mi yaa xamul téere bi ak ni borom téere bi tegi téere bi téere bi foofa tuxal na fa ay waxi borom xam-xam ak waxi boppam wax yi muy tuxal tamit fa muy jeexe léeg-léeg du def mandarga ne intaha wala yooyu rek indiwaat yeneen wax ji waxi indi indi waxi xafidu abi yaala ba mu jeex mu mu door cee teg waqat sonnafa al imaamu ahmad kon wasan waqat sonnafa imaamu ahmad jooju waxam lañ ko mën a jàpp riwaaya boobu itam fa mu yem nga ne wa jaadilhum billatii hiya ahsanu ji moom boolewu ci loolit it dëgëru fit képp la ak ñeme yàlla amu ci benn firnde bu wane ne bokku ci mbaa bokk li ibnu di riwaaya bokku noonu ma ko indee itam ñi ko tuxal ñu ci bari noonu lañ ko indee dama la ci jox rek benn misaal boo demee ci aljaamiu li ulum li ulumi imaami ahmad ab téere la aljaamiu li ulumi imaami ahmad loolu ñëwaat na ci ñu jële ko ci al adabu sharciya ba tey qaala xanbal qaala ahmadu qad kunna nu'maru bissukooti falamma ducina ila amrin ma kaana budun lana an nadfaa dalika ila qawlihi wa jaadilhum billati hiya ahsanu kon aaya boobu ngay wax bokku ci ñoom it ca waxi ahmad ja lañ ko boole te tuxale ko fi ma ko tuxale boo ñëwee tamit ci am na beneen téere boo xam ne benn docteur moo ko bind tudde ko almadhabul xanbali dirasatun fi taarixihi wa sumaati moom itam indi na riwaayab ibnu muflix boobu nee na wa qaala ibnu muflix rahimahullah waqad sanafa alimaamu ahmad noonu la ko toppee ba ca wajaadilhum billati hiya ahsanu jooju Euh, kon Moustapha daa weexu dunq waaye ñi ko tuxalee noonu te boole ko ci moom bari nañ da nag euh, boo xamut tey jaxase li ñuy toxal xay na mun naa am yow da nga dul xam fu muy yem ñàkk gi nga ko ñàkk xam nag du suñ problème xëy na sax ñàkk teey wala sax ñàkk xam moo la ko yóbbu waaye nii ma ko tuxale ñi koy tuxal ñu ci bari noonu lañ ko tuxale man nag tuxal naa ko ci al gis naa ko ci yeneen téere waaye gis naa tamit ci al arabu encore bu ibnu muflih waaye ñi ko tuxal tamit docteur boobu moo wax noonu la ko tuxale boo demee tamit ci al jaamiu li ulumil imam ahmad tamit noonu lañ ko tuxale aaya boobu ngay wax bukk ci lañ ko boole euh, kon wax ne loolu bukkut ci wax ji loolu fii xi nazar ndax mën naa bañ a ñëw ci li xalaal riwaaya mais xam nga nag xalaal mën naa gàttal riwaaya bi ñoom mën nañoo gis riwaaya bi riwaaya bi riwaaya bi feneen foo xam ne yow doo ko gis kon loolu beneen mbir li ñàkk gi nga ñàkk gis xum ne bu mu tax nga defee ne bokku ci ñi ko soxal dañ koy indiwaale euh, kon wax ne bokku ci lool daa ji wax ne itam ci waxi xafidu abi yaala la bokk loolu it fii ci na wax ndax ibnu muslim moom noom tëral bi tuxal na waxi abu yaxla ak eh, avant muy avant muy indi waxi xafidu abi yaxla eh, am na wax ju mu indi ba mu jeexee gis nga bi mu indi waxi xafidu abi yaxla <laughs> waxut ni fii la wax jeeyam naka noonu moom day wax rek kon bu waxee ba mu mu jékki ne waxat ba mu yàgg mu tam mu tuddaat keneen dañuy jàppale kon léegi waxi boppam ndax noonu lay doxee ndax wax ju ju muy jeexal ju ne rek day wax waqaala fulaan wala wala wala wala mu ne wa faala fulaan noonu lay jeexale waxi waxi ñit ñi te fii moom moom la fi def kon bëgg koo def waxi ibnu abi yaxla mbaa nga bëgg ne wax bokk ci wax imaamu ahmad loolu ku dëgër fit dong moo koy def mbaa boog wax ji ibnu maflih di askan imaamu ahmad nga ne bokk ci loolu dëgëru fit fa la yem ah, ñu dégluwaat sa njóobu eh, waxu bi nga xam ne moom la Moustapha wax ne di ne xamba eh, ibnu muflih moom moo ne imaam ahmad dafa taraajoo si loolu wax jooju du dëgg du waxu ibnu muflix boo demee si téere bi nga xam ne moom mooy al adabu sharia ibnu muflix dafa ne wa wajadtu fi kitabin li waladi waladi alqaadi abi yala ذكر فيه خلافا في المذهب وكلام أحمد في ذلك قال والصحيح من المذهب أن علم الكلام مشروع معمور به وتجوز المناظرة فيه والمحاجاة لأهل البدع ووضع الكتب في الرد عليهم وإلى ذلك ذهب أئمة التحقيق القاضي والتميمي في جماعة في جماعة المحققين وتمسكوا في ذلك مع استغنائه عن قول يسند إليه بقول الإمام أحمد في رواية المروزي إذا اشتغل بس طيب ما أنا واحد ما لوني ابن مفلح moko wax moy kero bay wax kero ne bo demee ci al adabu shar'iyya neena ibnu fulah neena na mu ne wax dugi du wax ibnu muflex maanaam lim mu bëgg wax moy da ko indi ci terem tuxal ko ci hafidu abi ala waye du waxam deug deug da koy tuxal lolou nak ñeema yàlla ak jaaware mo ci am ak ku dëgër ak ku dëgër fitam ibnu muflex ak terel bo xam day net li ay waxi nit ak ak lu ay nit def léeg-léeg mu ne di waqaala aydan فرسام البنيكي ابن عقيل لا وحجة تنبلي وقال أيضا قد تكرر من كثير من أهل العلم لا سيما أصحابنا قوله مذهب العجائز دينات لوحي ابن عقيل دينات لوحي ابن عقيل بان فقد أعطوا الطاعة حقها فقد ولقد علل قوم فمنعوا العقل عن الإصغاء إلى ذلك الإذعان بالعجز أم وحي ابن عقيل فهو لهم ويوخر انتهى لا جي جي ووجدت في كتاب لولدي ولد القاضي noonu la ko ibnu Muflih indi abi yaala zakara bihi xilaafan nga xam ne kon moom lu muy askan nit day wax rek def naa nangam wala diw def na nangam noonu lay waxee comme bi wax ibnu aqil yi jeexee itam waxu ne wax wax wax ibnu aqil fii lay am dane wa wajattu rek maanaam man man ibnu Muflih man man ibnu Muflih gis naa continuer di wax lee jaawaree wax di wax lee jaawaree wax ba ci fi mu agsee wala xëyri yatakallamu afdal daan daan ne nag waqat sonnafa al imaamu ahmad léegi nag lii wax ibnu muflix ji moom la jaawara ne léegi ci waxi xafidu abi yàlla jee la bokk te ibnu muflix mooy borom téere bi mooy borom téere bi mooy wax yi itam léegi wan fit moomay jaawara mu jékki-jékki ne waqad sanafa al imam ahmad rahimahullahu wa radiya anhu kitaaban fi raddi ala zanadiqati loolu ci waxi xafidu abi yàlla waaye du waxi ibnu muflix te ibnu muflix mooy borom téere bi te mboolem wax yim tuxal yëpp itam nii la ko tuxal comme ni ma ni ma ko rombe ci wax Ibnu yi kon ñeme yàlla ak dëgëru fit mooy fekk loo xam ne dara wóoru la ci euh, nga xar Ibnu Muflix moom ñamay tuxal day wax naa diw def na nangam wala diw nee na nangam wala mu léeg-léeg mu diw wax na ci téere sàngam noonu la doon tuxale te te booy jeexalit léeg-léeg du wax ne fii la sa yox yam day wax diw def na nangam wala diw wax na nangam continué noonu ba agsi ci imam ahmad mu ne loolu ahmad waxu ko loolu loolu loolu wax ibnu muflih waaye wax la ju muy tuxal sans aucune preuve aucune preuve xam nga lii mooy mooy yabaate ak ñeme yàlla te it ñi koy tuxale nii lañ koy tuxale wax naa ko léegi ci ginnaaw boo demee ci aljaamiu li ulumil imam ahmad bi koy tuxal noonu lañ ko tuxale noonu lañ ko tuxal askan ko al arabu waaye waxuñu ne waxi ibn abi yaala la al arab shar'i bu bu mo fa lañ ko askan bo dem ci ak docteur tamit bi nga xam mo la laa doon tudd léegi tam euh dirasa ci euh de de bu talif di dirasa tun fi al al madhhab hanbali dirasa taarixihi المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي مهم ابن مفلح الأسكن وحدي قال ابن مفلح رحمه الله وقد صنف الإمام أحمد te te moo dëppoog saniyaa ibn Muflih saniyaa ibn Muflih fil kitaab looloo dëppoog moom nan la genn wadd di jóge feere ak si ne du waxi ibn Muflih te du indi benn preuve booleeg du cayam di tuumaal ay nit nag ñu dégluwaat waa ji beneen bi tamit mooy eh, li ñuy ñàkk a eh, beneen melokaan bu nekk si ñoom mooy eh, wóoru lu wér ñoom wóoruñu lu wér c'est-à-dire ahlu sunna ñoom lu wër la ñuy wër lu wër la wër mais ahlul baatili daayima li ñuy wër mooy lii fekke naa ko si téere sangam te Moustapha loolu la def lii ne moom damay defe réewam ànd ak ne sax nag li mu wax wérul moom ndax man au moins euh, am na sanat bu ma indi boo xam ne riwaaya bu mel noonu ma nga ci Euh, ginnaaw bu ma indee waaye boobu nag itam indi naa am na ku ma tudd diw indi na sanad bi waaye bu fekkoon na ne moom laa def sax da nga xam ne damaa jékki-jékki rek daan ne looloo am te euh, amul sax lu ci am sanad yaakaar naa keneen na waroon a wax euh, waruñu lu wér ñoom dañuy fekk fenn rek dara jël ko waaye waruñu lu wér yaakaar naa keneen ko waroon wax ku dul jaawara ndax yaakaar naa ku topp sam si bi ma de def ci ginnaaw ak ya ko jiitu woon da nga xam ne moom daanaka du sukkandiku ci lu wér imul jëw si nee na ci téere sàngam lu amul sanad lay indi wala qaadi nee na wala diw nee na yu amul sanad daanaka boo koo dégg muy tuumal rek ci kuréel yi li gën a bari du doon lu am firde lu amul sanad lay doon wala yoo xam ne daanaka du dara kooku nag bu taxee fii di wax na diw wërul lu wér li mu askan ahmad nangam ak nangam ànd ak ne sax la muy wax nag wérul <laughs> moom na au moins man indi naa sanad Eh, ak loo si mën a wax moom riwaay bu am na eh, riwaay bu mu indi bu am sanad te it xamle naa ne lu bu riwaay bële lay indi laata ma ko tudd kon li mu wax wérul waaye bu wérul sax moom waru ko waru caa dugg moom ndax moom place wut pour wax ci moom daal damaa defee ne day mag mu guddee reer démb rek ñu dégluwaat ko ba xam. est imam Ahmadou waxu bi nga xam ne dafa ne Eh, ñoom dañuy dégle pour nit ñi bàyyi pour nit ñi noppi dañ doon wax nit ñi noppi est-ce que boobu noonu ci eh, ilmul kalaam la doon wax wala si lan la doon wax muy batterie bi nga xam ne eh, Moustapha Sylla def na encore parce que waxu ji su indee waxu ji yëpp day mabbu li mu bugg saxaan dina imaam Amadou dafa taraajo moo tax ne am na wax boo xam ne dafa dafa am solo mu bàyyi ko fa mooy lan xam nga imaamoon dañ ko laaj dañ ko laaj ab laaj moo tax mu wax loolu kan moo ko laaj muy xambali xambal bi nga xam ne riwaayam lañ yóbbu fale riwaay boobu noonu ab su'aal la imaam Ahmad de ko tontu mais su'aal boobu mooy lan su'aal boobu moo lay wane ne kon ñi nga xam ne mooy ahlul kalaam yi nga xam ne surtout wala di wala di abi yaala bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ilmul kalaam ñoo jëlee waxu jooju encore bàyyi bàyyi dégg yi waxu ji foofu lañ njëkk tàmbali tàmbale dégg waxu ji bu ñu dégg yi waxu ci Moustapha Sylla gisi loolu au lieu mu jàngat moom tamit ñeme yàlla lool imma mu ñëw si boppam mu xool xalaal mu gis encore nafsu riwaayate xam na bu baax li nekk falaak fii du bokk mu daal di continuer di taddilis nëbbu sanadu bi pour ñu jàpp ne benn waxu la fekkee du benn pour ñu ñu nëbbu sanadu pour ñu gëm ne ñaari waxu la te fekkee benn waxu la mais tamit am na loo xam ne sual bi question bi de koo battre de koo effacé parce que su question bi ñëwee rek kon moom lu mu bugg du am kon dina leer ñëpp dinañ xam ne moom moo waxul dëgg mais imam ahmadu musul wax ne day taraajus an ilm li mu doon ngañ ay ilmul kalaam مويلن خلال نينا وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال قلت لأبي عبد الله أن يعقوب بن شيبة وزكريا الشركي بن عمار أنهما إنما أخذ عنك هذا الأمر الوقف فقال أبو عبد الله كنا نعمر بالسكوت ونترك الخوض في الكلام وفي القرآن فلما دعينا إلى أمر ما كان بدا لنا من أن ندفع ذاك ونبين ونبين من أمره ما ينبغي إيه، حنبل في خلى الحنبل دفنه إيه، دمان لاجي أبو عبد الله منيكو يعقوب بن شيبة زكريا شرقي ñoom nee nañu yow la ñuy déggee ne ñu ne noppi al wax waqf nañu yëm foofu fan la wara war a yëm mbokk yi waqf bi mooy dinaa ko leeral waqf bii nii bi nga xam ne dañu wax ne nañu waqf mooy suñu ne alquran kalaamullah ñu noppi loolu dinaa ko leeral mais dama bëgg ñëw leeral leen fii saay-saay bi nga xam ne moom la Moustapha def ci kii bi xambali loolu la doon laaj imam Ahmad dégg naa diw ak diw ñu ne yow yaa leen wax loolu pour ñu noppi ñu waqf al waqf waxul sa ab sukuut waqf te ñu ñëpp xam nañu ne ñi nga xam ne imaam ahmad dafa leen tudd ahlul waqf al al mu al al waaqifa al waaqifa ñëpp xam nañu ne ñoom ñooy ñan mooy dañuy ñëw wax ne alquran kalaamu la ñu noppi si duñu wax ne laysa bi maxluqin foofu la njëlbéen salafu doon wax ne alquran kalaamu la dañu si noppi mais ba saay saay mubtadaa ñëw ahlul kalaam dañu wax ne alquranu kalaamullahi maxluqun wal iyaadu billah salaf il faut ñu ñëw di leeral ne ñu ne laysa bi maxluqin wala gayru maxluq léegi nag foofu la xambali laaji imam ahmad waqfu boobu noonu ñee nee na ñoom si imam ahmad lañ ko jëlee suñu ne alquranu kalaamullah ñu nëppi duñu wax xayra maxluuq mais ba gars yi commencé di wax ne alquran maxluuq donc ahlu sunna indi ziyaada bi buy wone ne alquran laysa bi maxluqin kon ku waxu ji nga xam ne moom la imam ahmad wax ne kunna naamuru bis sukuuti wa natruku alxawda fi lkalaami waxu ji la mooy duñu daalu woon wax alquran kalaamullah gayra maxluuq daalu ñu wax wax gayru maxluuq mais ba gars yi dugg si problème bi di indi maxluuq ñoom ñu daal di yokku laysa bi maxluuqin mais pas comme Moustapha Sylla bu gëmloo nit ñi ne imam ahmad dañ doon teree nit ñi si ilmul kalaam day doon ŋaññi mais léegi bàyyi na loolu taraaju ah, waa ji wax daanaka xam naa la mu ñu moom <laughs> xëy na koy dégg sax mën naa mën ngaa bañ a xam li muy wax moo ko asar yi mu indiwaat ginnaaw bii yëpp fi mu jëm mooy alimaamu ahmad kalaam bi nga xam ne moom la mayewoon ku ko def rek moom mooy ñi ñu doon tudde ay waaqifiya li ñu tudde waqf maanaam doo wax ne alxuraan maxluuq la doo wax ne tamit xayru maxluuq xëy na foofu la wax ji jëman waaye jëmutoon ci ilmul kalaam moom la ahmad bañoon ba mu yàgg mu nangu ko jëmutoon foofu waaye fi mu jëmoon mooy li ñuy tuddee al waqfu moom la Ahmad doon wax naa doon naa diglu ko ci noppi waaye léegi euh, ginnaaw dem nañ ba munta ñàkk mënees na caa wax xam naa loolu la bëgg a wax donte laa mu léerul <laughs> jaawara moom loolu mu wax nag wérut bokk na ci gàtt xel defee ne deltu gi Ahmad deltu gi naan ci wurum ilmul kalaam te xanaa bi léegi ci moom saxal ko ngoone su mel ni jaawara bu defee ne mën na ko weddi day nax boppam riwaya bi muy wax dañ ko leral dañ leral tamit yenen yu bokkut ak bi riwaya bi ma indi won man amna luma jële won ci tereb al aadabu sharciyatu libni muflix al xanbali waaye am na bu ma jële won tamit ci al khallal bobu nak la jaaware jema a daaj ji fi mu ne wa dima riwaaya ba riwaaya ba ni mu ñëwee mooy wa axbarani ali ibnu isa anna xanbalan xadasahum qaala qultu li abi abdillahi أن يعقوب بن شيبة وزكريا الشركي ابن عمار أنهما إنما أخذا عنك هذا الأمر هذا الأمر الوقف فقال أبو عبد الله كنا نأمر بالسكوت ونترك الخوض في الكلام وفي القرآن فلما دعينا إلى أمر ما كان بد ما كان بدا لنا من أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينبغي dafa علي بن عيسان وخنا من حنبل وخنا ma دما وخ ahmad ibnu hanbal te mooy abi abdullah ne ko yaqub ibnu shayba ak zakariya dañoo wax ne yow day noppi bañ a wax ci mbir mii ci yow lañ ko jële taxawlu nee na ahmad ne leen man day dama daan digle ñu noppi di di di digle itam doona naa digle ñuy noppi ak bàyyi xuus ci alkalaam ak ci alquran waaye bi ñu ba woonu ci mbir moo xam amunu ca pexe faw nu jiñ loolee leeral mbir moomee la ca yell kon fii Ahmad wax na fi wax ju leer alxawda fil kalaam al kalaam boo bëggee xam ne ci Ahmad jublu dangay xool riwaay yi ko jiitu te al kalaam sax buñ ko itlaaqee ci béréb bi kone xam na ne ku xam na lañ ci jublu waaye kenn mënta wax ne alquran la ci jublu parce que bu fekkoon ne alquran la ci jublu du rew wa fil quran xawda fil kalaami wa fil quran bu fekkoon te ni mbirum alquran dong la kon danaan wanatrukul xawda fil quran waaye kon du wax kalaam waaye jaawar a gàtt xel gi daa daa tax mu defee ne xëy na mbir mi fii rek la yem mbir mi ay asaara ko wër yu ko jiitu ak yu ca topp dëgg la mbirum waqfu ci la bokk mais maye sax ku bàyyi waqfu rek ma maanaam maye ko wax ci mbirum alxuraan ci buntu bii rek naa max xayru maxluuq loolu rek ak kalaam la loolu lii muy yéem a défendre bu ñu ko ko nanguloon rek moom dèjà li li ñuy wax moom reconnaître na ko xëy na daal xamul lan mooy kalaam moo tax coow li bari ndax dégg naa mu di ko taxare ci ginnaaw ne bu xamoon dëgg-dëgg kalaam soo coowam lii du bari ndax lii muy défendre bu sotti woon bañ ne Ahmad fee mu jëmale wax ji fa ko jëmale liñ mën a wax mooy Ahmad nangu na kalaam kon waaye mbir mi sax dafa weesu foofu euh, dafa am ay riwaayaat yeneen ak yeneen yoo xam ne même ci xalaal boobu boo demee bi jiitu bi da ko fay fekk boo demee ci numéro 1793 bi da fay fekk. Euh, ñun nag danañ dellu ci téereb xalaal boobu indi ci ay misaal buñ ci jógee itam danañ ñëwaat ci firi yi borom borom borom xam-xam yi nga xam ne ay xanaa xanaabila lañ di dongay Ahmad loolu nag defe naa buñ ci jógee defe naa ne kenn waratu la déglu jaawar bi nga xam ne defe naa ne firut iji ci bunt bi. système bi mu jël nag mooy saaga xanaa bi la yu mag yi daa mel ni naa dañoo defu caay caay même bay xaq yi sax boole na ko ci daa mel ni ci saay saay si la ko boole ñàkk xam-xam nag doy na waaye bu la yóbbee nag borom xam yi wax wax ju leer nañ Ahmad wax wax ju leer nañ borom xam yi leeral ko ci nañ ko dégg yow xamoo lu am solo di leen saaga ngir ànd ak Ibnu Taymiya rek wala dégginu Ibnu Taymiya la doy tax nga naa borom xam bu toll bay xaq yi ak caay caay la def mbaa am na sax audio yu mu woon benn waay boo xam ne daal léegi muy wax booy xaqiiqa man moom jaawar man moom ci moom du ma ko wax euh, ngir nekk Baay Faal gum nekk Baay Faal xëy na Ibnu Taymiya ak Ibnu Qayyim nga xam ñooñu la gëm ndax yii ñuy wax moo ko yii muy wax ñoo ko wax <coughs> waxi sëriñam lay nett li ne loolu nag xëy na daa bokkut ak la wér moo tax coonam bii mu nekk mu nekk mais téereb xalaal boobu boo demoon ci numéro 1793 da nga xam baatub kalaam lan lañ ci jublu boo demoon ci numéro xadis 1793 ci téereb xalaal boobu nga gis yaa yaa ñu lëkkaleel kalaam da nga xam lan lan lañ jublu fii ci kalaam lii dul wax juñ mën a tawil ahmad daf ne كنا نأمر بالسكوت ونترك الخوض في الكلام وفي القرآن فلما دعينا إلى أمر ما كان بد لنا من أن ندفع ذلك لأنه ديغلي كو نوب bàyyee xuus ci kalaam te kalaam ku ne xam na li muy tekk même ci téere bi at takallum mooy wax ci wax bu daay ci wax ak gaay yi weddi bokk ci mbirum sifaatullaahi loola ku ne du kalaam yow xamoo lan mooy kalaam leer na nañ sax nag ci 1793 nga xam ne ci ay xusuuma ak ci jadal lañ ko lëkk lañ ko lënk lañ ko lëkkaleel xay na sax asar boobu moo tax Ahmad deltuwaat ginnaaw ci tere gi mu doon tere ku ci mbirum kalaam yeneen yi mu teg nag naa bu leen toog ak waa kalaam bu leen bool wax ak kenn kenn ci ñoom mooy gaa yi nga xam ne ñoo ñooy xuus ci alxuraan te cay wax yu jaaduwut loolu daqonte wut ak dara wax ji ndax teewut mu may leen teewut mu may leen bu ñu waree wax bu ñu mun ñu ñàkk wax ñu wax kon kay la nga ci mën a dégg mooy fam koy dagarale mooy boo mooy boo demee ba ñàkk pexe waaye mu dëggandalu ko mu mënis ko wax moom même riwaay bi ak yi muy sukkandikoo ak ak ak mbirum waqf yi waa yi sukkandikoo sukkandikoo naa la ci Ahmad mooy bañ a wax mooy mbirum waqf la doon wax ak yu noonu maanaam ñi nga xam ne ñoo ne alxuraan du luñ bind du wax ne du dañ koo bind du ma wax ne bindeesu ko ñoo ñaata xoon wax ji jóg même buñ nangu woon loolu kenn mënut a dàq ne Ahmad moom saa yoo xamee ne dem nañ ba euh, war a leeral loo xam ne mënees ko ñàkk leeral nga leeral ko ci kalaam loolu mënees ko dàq ci riwaaya bi ci ci genn anam nag ci genn anam alxawdu fil kalaam da ko doon tere léegi bi mu demee ba xam ne am na kaa yoo xam ne mënees saa ñàkk dugg mu maye ko même ci riwaayab xalaal bi ak la ko jiitu boo gisee baatub kalaam li ci jublu da nga xam lu leer nañ da nga xam li tax borom xam yi nga xam ne am ñu dégg ñoom nga xam ne doonuñu ñu gàtt xel la tax ñu ne daa deltu ginnaaw ci lam doon wax boo ko seetloo da ko mën a dégg bu baax a baax euh, waaye danañ ñëwaat ci beneen vocal leeral ne Ahmad moom daa deltu ginnaaw deltu ginnaaw gu kenn du nattab bi wala ku gàtt moo koy jéem a nattab bi te leerale ko ci lan duma ko ne du ma ko leerale sax ci waxi asaari yi waaye ci ay waxi kilifa yu mag a mag ci mbirum Ahmad ci laa koy leerale kon di indi ay asar naa Ahmad euh, la taxoon wax ji jóg mooy mbirum waqfu kese loolu gàtt xel ndax boo yemoon ci waqfu kese nga daari sa bopp ndax même boo ko yemale woon ci mbirum waqfu kese loolu kalaam la loolu loolu ci moom kalaam la te Ahmad da ko doon tere ci njëlbeen bi léegi nag gannaaw doon tere ku noppi bañ a dugg ci loolu ginnaaw bi mu joxee ndigal ne loolu moom buñ demee ba munta ñàkk warees na koo man kon ak deltu ginnaaw am na dafa am leen jëmee itam kenn munta tee mu doon kalaam ci ko xam kalaam laa wax mën nag ko xam ne xamoo ko léegi nag xam naa danañ ñëw ci waxe borom xam yi ci wàllu riwaay bii ñu toll xam naa nag bokk na ci gàtt xelum waa ji asar yi nga xam ne Ahmad da ciy tere mbirum kalaam mu naa doomam nettali ko ci téere sàngam ak Ahmad wax na ko fii ak yooyu mel ni ñun dañoo wuteeg moom ci loolu ñun wuute wuñu ak waa ci ne Ahmad mas naa séré alimul kalaam de wala am nañu ko nettali ci moom foofu du du neqatatul foofu du mooy est-ce que loolu la Ahmad mujje kon di nettali ay mbir na lii wér ni ci moom ak yooyu loolu ku xamut fan la ñu moom moo cay ne boo demee si alqaadi Abu Yaala ci al udda xaajum ñeenteel bi 1273 damay ragal nag jaawar ak boole ko ci saay saay si alqaadi Abu Yaala boo muy ci saay saay si la koy boole ndax daa mel ni nee na ñi wax ñi wax loolu ñooy saay saay yi <coughs> waaye defe naa qaadi Abu Yaala ku ku xam darajaam ci almadhabul xanbali defe naa doo comparé waxam ak wax jaawar قاضي نانا وقد احتج وقد احتج احمد رحمه الله بدلائل العقول في مواضع فيما خرجه في الرد على على الزنادقه والجهميه نانا احمد لا ينا لا يخلي تلول موي علم الكلام لا يخل في نون موي موي علم الكلام بابك علم الكلام لا بوك كي تعريف برخم يبارك نانا احمد لا ينا لا يخلي كي اي بريب كي لم جيني كي ci rëcc bi muy raddu saay-saay si ak jahmiya yi te qaadi yëmut ci loolu waaye daa toxal ay textes yoo xam ne nee na Ahmad a ko wax ci téere yooyu te téere yooyu lay xel la waaye du ay ay ak xadis kese kon qaadi moom bukkut ak jaaware di wax di sànni waaye day wax di indi ay firnde ci la muy wax mu ne qaadi teg ci ne wa hada sarixun min ahmad rahimahullah fi l ixtijaaji bi dalail al uquli وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء والمتكلمين من أهل الإثبات لأن لي لولير نني لتشين أحمد دون لا يلا خلي كن جن جاب لا جاور دون وحني دور لا يلا يخل ولو لم يجي ما ونن نون لحمن ملون كيف كيف جي نحن مم كبير وهم جدون وحنا مو جن أحمد ابن مفلح وقاضي أبو يعلى نانا أحمد دون لا يلا خلي في أي تيرم te nee na mboolem fuqahaaw yi mboolem fuqahaaw yi ak mutakallimoon yi ci ñi nga xam ne ñoo saxalal yàlla li mu saxalal boppam ci loolu yi la ñu jëm maanaa ci ilmul kalaam mooy al ixtijaaj bi dala bi dala ilal uqul kon ha haadihi shahaadatun min al ciyaari thaqil alqawdi abu yacla ba tey ci cudda xaaju ñeenteelu page page 1279 nee na fa in qiila alaysa qad manaca ahmadu radiallahu anhu min annadari walkalaami fa qaala fi riwaayati abdus ابن مالك العطار لا يكون صاحب الكلام وإن أصاب بكلامه سنة وإن أصاب بكلامه سنة من أهل السنة حتى يرعى الجدال قيل إنما نهى عن الجدال الذي هو المراء يعني فيك يا أمنا نوحنا دون نوحنا أحمد كت في رواية بغانا عبدوس ابن مالك العطار مولا نتلدى وحنا كو خانا جفن في علم الكلام دون تسخ كلام بوبيه ومكو جفن دي كو جدنا في سنة معنا جارنا في باقي في سنة loola du tax mu bokk ci ahlu sunna fekk bàyyiwut ilmul kalaam nee na bu fekkee nit daa wax loolu léegi dañ koy wax ne ko ah Ahmad kat ilmul kalaam bi mu tere kalaam bi mu tere mooy bi nga xam ne werante la alaa tara anna Ababakrin al-Marwazi sa'alahu an rajul yashta'ilu bis-sawmi was-salaati wa ya'tazilu wa yaskutu an al-kalaami fi ahli al-bid'i qaala idaa saama wa sallaa wa i'tazala innama huwa li nafsihi wa ida takallama kaana lahu wa li gayrihi yatakallamu afdal qaadi abu di imaamul xanaabila ne xanaa gisoo ne aboubacar nil marwazi bi mu la marwazi bi mu laajee ahmad ne ko nit koo xam ne day soxla woo woor ak julli ak beru waaye du wax nag du dugg ci kalaam ak gaay bi daay ahmad ne ko ah bu wooree te julli te beru day moom boppam dong la koy defal waaye bu fekkee nag dugg na ci di tontu gaa yi bi yi di wax ak ñoom nee na loolu moom dana ko defal boppam defal ko defal defal ko keneen ku moom kon mu dugg ci di tontu gaa yi bi yi di wax ak ñoom moo gën ci moom nga gis ne kon ilmul kalaam ahmad saxal na ko fi saxal leer nañ nañ nañ lenn du ilmul kalaam lu rut al kalaam maa ahlil bidaa kon qaadi Abu Yaala bi nga xam ne xam na maanal jidaal ak maanal kalaam lan la moom saxal na fii ne ahmad saxal na ilmul kalaam ci ab riwaya bo xamne ne kalaasu ibnu taymiya ga ci taylim dañ koy jéem tawil te mënee su ko tawil ma ñëwaat ci benen qadi abu ya'lani wa rawa hanbal annahu qala li ahmad rahimahullah inna ya'qub ibn بن wa وزكريا ibn ammar akhbara عنك الوقف فقال قد كنا نأمر بالسكوت فلما دعينا إلى أمر ما كان بد لنا من أن ندفع ونبينه وهذا صريح منه بالقول بالنظر لي موي رواي بيغا خاني ديغين بيما تي ام moom la ci qaadi Abu Ya'la tamit am qaadi Abu Ya'la nag xanaa jaawara moom yaakaar naa doo ko boole ci say say si wala wala wala ñu ngi tuddee ay ay narkat Ahmad kalaasu bay xaq yi yaakaar naa bu fekkee bay xaq yi du wax dëgg qaadi Abu Ya'la du wax dëgg wala du Abi Ya'la du wax dëgg Tamimi mi nga xam ne moo doon kilifa Xanaabila yi ci ci jamonoom du wax dëgg maanaam Xanaabila yi kilifa yi amu ci koy wax dëgg meenum jaawara yow rek yaa wax dëgg yaa ngi Ibnu Taymiya defena legi mbiri xorom qadi qadi nak mo yi nag moo moo jiitu Ibnu gën ko xam Ahmad gën ko ko jege itam saxal na fi ni Ahmad da saxal ilmul kalaam wa qala al-Marwazi qultu li abi abdullah yani imamuna Ahmad tara li rajul an yashtagala bi sawmi wa salaati wa yaskuta an al-kalaami fi ahli al-bidaa fakalaxa wajhuhu wa qaala idaa huwa wa salla wa atasala wa atasala annaasa alaysa innama huwa li nafsihi qultu bala qaala fa ida takallama kaana lahu wa wa lii boo demee ci riwaaya Marwazi boo demee ci tabaqaatul xanaabila ma nga fa gaay bi daay ñuy yàq pas-pas yi ñuy dugg ci safaat yi di yàq xeli nit ñi nga toog di naa damay julleeg damay woor loola laa xamat xam le bokk rek la gën la gën mooy nga dugg ci di wax ak ñoom te riwaaya bu xalaal bi itam loolu dong mu lay tekki gàtt gaay yi gàtt xel nag lënkale gi ñu ko lënkaleeg waqf ci alquran ak yooyu moo tax ñu defeen foofu rek la ko ahmad bëgg a yebal waaye xam nga ne ku ko nangu foofa nangu na ko faneen fépp mu mu mel noonu am rek ahmad mayee na donte moom sóorut ci kalam waaye bu demee bu mënta ñàkk da da cay da koy bëgg euh, kon nam ko doon tere noonu mu ko waxee kun naa na amuru bi sukko dañ doon digle ko noppi da caa génn léegi noppi googu it laa xatul ko dafa am fu muy mayee ku ca wax loolu moy li nga xamne kenn kenn kenn mën ta fexe ba tawil ko loolu itam mo dëppoog li nga xamne mom la ibnu muflih wax bo demé tamit ci al arab shar'iyya ibnu muflih toxal na ci ibnu aqil mo itam damay ragal jaawar boole ko ci euh say saay si boo muyut mom ibnu aqil mo itam neena neena khalif khutbatul fi khutbatul irshad wa a'tadhiru an law mi baadi ahli zamanina bi qawlihim al ishtigala bi ghayr al usul wa as sukuta anha ahra fa inna hadha qawl jahil بمحل الأزول منحرف عن الصواب وذكر كلاما كثيرا قال أحمد كنا نسكت حتى دفعنا إلى الكلام فتكلمنا ولبغ حتى دفعنا إلى الكلام فتكلمنا كن نيتك بدا بو فا نيكي موي اندي اي شبا فاو nga dug ak mom cheikh mota ahmad da def da def ay munazara munazara itam day jëfëndiko adillatu lo xol parce que mën ta ñak mënta ñàkk am na subha boo xam ne bu ko mubtadi indi boo ko bàyyee day sikk sàkk loo nit ñi même bu noppee dañuy sikk sikk sàkk te loolu feeñ na sax ci riwaay yi ci yenn ci riwaay yi jiitu riwaay boobu mooy boobu ma doon tudd euh, kon bu demee ba nga xam ne boo leen bàyyee ñu sikk sàkk loo nit ñi faaw nga wax loolu loolu ku koy jéem a tawil rek da nga xamul li xew ba léegi itam boo demee ci ibnu Hamdan firi na waxi Ahmad jooju moom itam damay ragal gaawaan euh, mag la ci xanaabila yi damay ragal gaawaan boole ko ci saay saay si moom itam ibnu Hamdan boo demee ci sifatul mufti wal mustafti nee na wa qad qaala Ahmadu lastu bi saaxibi kalaamin wala aral kalaama fi cheyin illa ma kaana fi kitaabillahi aw sunnati rasulihi lii dégg naa jaawar di ko wax te dégg ko dafa ngalaab boppam te yëgul na ngalaab na boppam ndax Ahmad itlaaqu ko wax ju ju newut ci téere yàlla bi ak sunna su yonent bi lay wax kon nag xam nga ne buñ bu fekkee dañoo tudd dara ci téere bu yàlla bi wala sunna si yonent bi wax ci ay wax ahmad dana ci wax ndax du bàyyi subha bi noonu wa qaala kunna naamuru bi sukuri falammaa du'inaa ilal kalaami takallamnaa ibnu hamdan nee na ahmad loolu la wax bi nga xam ne woo nañu ci ñu dugg ci kalaam dañoo wax ibnu hamdan ne yaani zaman al mihnati li darurati fii daf'i shibahihim nee na jamono yi nga xam ne ci la nekkoon ci nattu bi la bëgg a wax ndax booba mënut a ñàkk leeral lënt yi nga xam ne moom la gaa yi indi ابن حمد قال سمحنا علم الكلام المذموم هو أصول الدين إذا تكلم فيه بالمعقول المحض أي المخالف للمنقول الصريح الصحيح نانا علم الكلام بني غاني صح موي بو خاني فك يو داغي واخي سام خيل كيسه كيسه غا خاني بولي وتي القران والسنه واي سام خيل كيسه كيب غاي واخي نانا بوبو نوي بوبو موي بني غاني تي لول بني اكسي سي كلام الاشاعره داغي خاني اشاعره يوبلو ونتي لول لونغ xay na jaawar moo xamut lañ bëgg wax mu mu lëntal te lool danañ ci ñëw euh, asaari du du loon rek lañuy ñuy doxee xelum kese nanguwuñ ko sax loolu sax nanguwuñ ko kon bi ñuy ngaañ ñi mooy koo xam ne léppam ci xel dong nga ko teg amul beneen firnde boo ci teg burut xelum kese moo tax boo demee ci euh, ak docteur Abdullahi ibnu Abdul Muhsin Turki ci téeréem bi mu tudd al madhabul hanbali في تاريخه وسماته فواخني ولئن كان الإمام أحمد في أول أمره يحض أصحابه وينصح طلابه بعدم الخوض مع أهل البلاع وينهاهم أن يجادلوهم باعتبار أن ذلك من الجدال المذموم في دين الله عز وجل والمراء الممقوت والمراء الممقوت في القرآن الكريم فإنه قد عدل عن ذلك في آخر أمره إن فك إمام أحمد حنبل ci njëlbeenu mbiram da doon soññ ay gaayam di laa ay ndongaam ne leen bu leen xuus ci bu leen xuus a gaay gu day ci ay wax di leen tere itam ñuy dàggasanteeg ñoom ndax jàpp loolu moom xeetu dàggante woo dàggasante woo ñu ngaa ñi la ci diine yàlla azza wa jalla euh, euh, warante wu baaxul la ci alquran karim nee na ci mujjug mbiram da caa génn wa raa anna faridata wa wajabat mujj gi dafa mujj gis ne faratay eh, eh, aar sharia ci ay cosaanam ak ci ay bànqaasam ay pas ak ay attey fiqi yëpp dafa war baada ma stafxala amru zanadiqati wal jahmiyati wal murjiati ginnaaw boo xamee mbirum naafiq yeeg jahmiya yi ak eh, ahlul irja ñi nga xam ne dañuy wax rek boo gëmee yàlla rek nangam nee na bi seen demee ba bayaatu yaatu ahmad daa gis ne kat léegi défendre loolu nag daa jot nee na wa saarat fitnatuhum tanfudu ila qulubil xawaas wal awaami fii Bagdad ba nga xam ne seen fitna dafa mujj tàmbali dugg ci xol yi euh, ñi nga xam ne ñooy ñu xeej ak ñi nga xam ñi maanaam ñi nga xam ne euh, fitna seen fitna tàmbali naa dugg ci ñaay borom xam ñi ko doonul ñëpp tàmbali nañ leen fitnaal tàmbali leen euh, sik sak sik sak yu mel noonu nga xam ne seen fitna ñi nga dugg ci xol yi jamono joojee la Ahmad gis nañ ne aar sharia aar usuli sharia ak furu am loola farat la fi ne kon looloo tax mu génn ci tere gi doon tere alkalaam maa ahlil bi nag mu indi wax ibnu muflix jooju ma doon nettali ci ginnaaw te jaawar doon ci jéemalantal kon loolu leer na nañ docteur bi nee na wa min suwari zalika aljidaali alilmi alladi xufida lana an imami ahli sunna qawluhu man qaala alquranu maxluqun fa huwa indana kafirun li anna alqurana min ilmillahi wa fihi asmaullah bokk na ci lay yooyu nga xam ne lay xel la yu ahmad doon jëfandikoo te ñi koy woowee ilmul kalaam wax gi ahmad doon wax naa ku ne alquran dañ koy bind yow fi nun ab kéefar nga lu ko waral ndax alquran ci xam-xamam yàlla la bokk te te tur yàlla yi da cee ne xam nga lii dalil la aqli la وإذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر بفكي نيت كي نين خام خام يالله نكو يفر لي لانه يزعم انه لم يكن لله علم حتى خلقه ندخ لول كوك داي نكون يالله امرون خام خام يالله دا جي جي امرون خام مو بن خام خام واي امرون خام كون لي بوك خير كلام بي دون ديفن كو موم وبهذا فتح الامام احمد وبهذا فتح الامام احمد امام اصحابه بابا للدفاع عن السنه دكتور بن انا تي الامام احمد اوبل اي نونغام بونتو غير ني ديفاندر سنه ومحا ججت المبتدعه في اك دي داغ سنتك غاي بداي باللسان والقلم تي اولا من اك خليوه فتتابعوا يناظرون نينا ني لن تامبلي دي ديبا ويؤلفون بتاليف اي تيري حتى ملات ما اثرهم في ذلك سمع التاريخ وبصره بغا خمنه في نجي اخي مجي نفس ديغو التاريخ اك maanaam fees na dell ak taarix daal déggu taarix ak gisam lépp fees na ko euh, moo tax mu ne ibnu muflix tuxal na jële ci euh, sëtub alqaadi abu yaala mu ne wa saxiixu fi lmadhab anna ilm alkalaami mashruun mamurun bihi nee na li wér ci ngir bu ahmad moom mooy ilmul kalaam moom lu ñu yoonal la moom na xam naa ci saay saay si la ko jaawree boole docteur bi sax xam naa ci saay saay si lay bokk moom itam wa tajuusul munaadaratu fiihi wal muhaajatu li ahli wal muhaajatu li ahli bidaa maanaam débat ci ci ilmul kalaam ak débat ci ak layante ci gaay yi bidaa yi nee na loolu dagan na wa wadaa al kutubi fi raddi alayhim alayhim ak def ci ay téere ngir raddu ñooñu wa fi dalika dahaba wa fi dalika dahaba aimatu tahqiq al qaadi wa tamimi nee na ñi nga xam ne ñooy muhaqiqoon yi ñooy kilifay muhaqiqoon yi ku ci mel qaadi abu yala ak ak tamimi fi jamaatil muhaqiqin ak ci ak ci ci biir mbooloom gaa yi muhaqiqoon yi nga xam ne muhaqiqoon yi ci boppam loolu lañ wax muhaqiqoon madhabul hanbali wa tamassuku fi dalika maa istighnaihi an qawli mustanadu ilayhi nee nañu nee na bokk na ci lañ doon tegtaloo te ànd ak ànd ak loolu sax jurtuñu tegtal yéen bokk na ci lañ doon tegtaloo mooy wax ji imaam Ahmad wax ci riwaayatu Marwazi ida staxala bi sawmi wa salaati waxtasala wa sakata ala alkalaami fi ahli lbidaa mooy riwaay bi moo doon nettali ci ginnaaw tam tam tam doon tegtale gu leer naññ ne Ahmad moom nangu na alkalaam ma ahli ma ahlil bidaa fil usul loolu moom tegtal bu leer nañ la xam naa ku gàtt xel wala ku gàtt sax mooy di ko jéem a weddi ndax xam nga ne leer na la boo ko weddi ñi lay déglu ba ñu am xel dañu xam ne li ngay wax du dëgg waaye buñ jàppoon ne dëgg la itam ko dégg dana ko weddiwaat feneen waaye jaawara gàtt xel gi àgg na ci di jéem a weddi ne Ahmad daw dugg ci eh, eh, eh, adillatul uqul gàtt gum gàtt xel moo mu diko weddi ndax sëriñam Ibnu Taymiya ci moko moo daj wane na Ahmad yëmuton rek ci ay nusus bokk na ci lim doon tegtale tektalo am xel nee fa salaka al imam ahmad wa ghayruhu ma al istidlal bin nusus wa bil ijmaaci maslaka al istidlaali bil fitrati wal aqisati al aqliyati saxiixa kon ahmad qiyaasi xel yu wér yi ibnu taymiya nee na doon lolu ko jëfëndiko lolu ko jëfëndiko kon lolu lu mata bayyi xel لأن فسلك الإمام أحمد وغيره مع الاستدلال بالنصوص وبالإجماع مسلك الاستدلال بالفطرة والأقيسة العقلية الصحيحة ولمجمع تلميذ الجهمية كلام بمنون بمن غني كلام جهمية كلام بجهمية دون جهل كما يقولون غني ورحمه وهكذا كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة في ذم الكلام كان متناولا لكلام الجهمية ولو جدر تعارض العقل ونقل قال جرم يار الفاز 275 ibnu taymiya ci boppam mutakallim la dara uta aarud al aqli wa naqli koo xool xam loolu ko borom xam yi wax naa mu takk kaana mënal mu takkallimin comme boo demee ci eh, ibnul wazir leenaa yi ci téere mi ñëw alawasim wal qawasim la loolu noonu la demee ibnu qayim kenn gënu koo doon mu takkallim kenn cest à problème bi gars yi dañoo xamul lan mooy ilmul kalam xam naa xëy na bu bu ma ko jàng bu ko jàngal dinaa dinaa ko jox bind ndax mu xam li ñuy wax lan la ndax lii lii ko dal lépp ñàkk xam dong nga ko teg ñàkk xam képp moo ko teg xam naa nag li gën a xoromu nag mooy wax si ji mi indi ci ibnu lubbaan man ibnu lubbaan koo tudd fi <coughs> man kay li ma waral leeral mooy tamit mii moom fan la defee lu mel noonu <coughs> ak yéen preuve nga ci am fan la ko xam xamdaan defe fan la ko xawdi abu awoy ala defee fan la ko ibnu muflix defee fan la ko diw defee fan la ko fan la ko kilifa xanaa bi la yi daje kay leeral na seen imam moom ci lii la mujj te ñooy mu xaqiqoona yi comme ni ko euh, sibtu sibtul qaadi abu yala waxe nga xam ne mu xaqiqoon xanaa bi la yi mbooloo mu xaqiqoon madhab ñoo dajaloo ni lii moo wér ci ngir mi euh, ñu bari ci ñoom itam wax ne ahmad daa daa deltu gannaaw ci mujj te ba fii ma waxee yow nag indeegoo luy bi seen wax jooje bal sax bal sax li ngay jéem a weddi te defe ne aw lay la koy gën a dëggal euh, waaye moom ibnu lubbaan def na léegi yooyu moom daanaka amul solo man waxuma ci waxuma ci ibnu lubbaan sukkandikuwuma ci moom itam man ñi may sukkandiku gisaguma ku leen jar ci ulamaawul jarx wa taadil kenn seenug imaama ca almadhabul xanbali yi tamit képp ku na féqut xam nga ko ay xaadi abu ak ak mi nga xam ne ay jamono moo doon raisul buñ taxawee wax defe naa ne fii ne wax mënees na koo bàyyi xel wuuteeg si sëriñ Ibnu Taymiya nag xamal ne lu man a ne la ndax Ibnu Taymiya moom daa am gis-gisam te gis-gis moom gis dëppoo te gis-gisu ahlu sunna te ñee nag ci ci ñi bari ñu bari si ñoom ahlu ci ahlu lañ bëgg a bokk surtout ko ci mel ne tamit mi Ahmad ibn Hanbal it sunna la ne woon moo tax eh, gis ab riwaaya bu mu doon tere ilmul kalaam wala boo xam ne wér na ne tere woon na ko tekkiwut ne loola mooy moom la mujj kon bu ba bu keneen indee beneen riwaaya bu wér wane ne da caa génn ay borom xam firi ko leeral la ca Ahmad jublu ak la wër riwaaya ba yow nga doon ngoone soo xam ne yow mën naa am riwaaya sax foog naa ci man am na ci bopp bopp bi ragal naa loolu ci mën nga ko dégg ndax gis naa ne vocal bi ma njëkk a jot ci yow Euh, na nga waxee nuruwul ne xamoon nga ko naa dama ko wax nga doon ko wëri ku sa xam gaa xam-xam di gàtt ci <coughs> koo xam ne nag li ma jàpp bu ne demee moom mooy sa noonu la gàtt ci mbir mi nga xam ne yow li nga ci xam bëriwul nit day wax a xam ne débat sax ñi muy wëw maanaam wax nga dem toogi fan wala nga kii wër a wër ba am nga xam-xam ñëw wax euh, boo waxee buñ ko dajjee nga demaat bu ci kanamee nga dil siwaat waaye jàkkaarloo ñi muy wëw nga xam xam noonu la gàtte ci mbir mi defee ne xanaa xanaabila yi nga xam ne seen dund gépp ci almadhabul xanbali lañ ko jeexal ak ci jàngat jaar-jaari ahmad nga defee ne lu ñuy wax yow mën nga koo jékki-jékki weddi am am xel noonu la sam xel bu gàttee noonu euh, xamal ne da sonal sa bopp rek waaye lii ñuy wax ma amul loo dindi ndax man lii ma wax du maa ko a wax ci kilifa xanaa bi lay la ko jële tey wax ju am ay firnde la borom xam yi xanaa bi la yi ko gën a xam firi nañ ko dégg yi ni Ibnu Taymiya yi ngi fi indi nag du ci soppi dara moom amul lum ci soppi dañuy xam ne ab Baay Faal nga bu déggal sëriñam rek bu ko defee nag ñun moom la gën a wér ci ngir mi la ñuy topp te moom la ñuy wër te gis nañ ko keneen koo xam ne nag daa nekk Baay Baay Faalu Ibnu Taymiya mbaa mu nekk ba tax lañ gis nanguwu koo ba kooku problème moom waaye nun dul ci yóbbaale li nu jàpp daal te am ciy firnde mooy Ahmad génn na ci loolu it xanaa bi lay saxal nañ ko yi nga xam ne ñoom ñooy xanaa bi lay wér yi waxuma ne ñii tuddoo Ahmad te doonuñu ko yëf ne nag coow lu ba rek saaga du ko réglé yëf yi xam-xam koy réglé xam-xam indi lu leer bu dee nag diw net li na ci Ahmad ne terewoon na ko loolu moom jàppal ne daanaka laa tuqaddim wala tu axir loolu du noq maxalu nizaa صحة بعض بعض الآثار المروية عن أحمد في ذم الكلام ليس محل النزاع محل النزاع كيموي <laughs> هل تراجع أم لا ولنا, ولنا روايات تدل على ذلك <laughs> بل وأدلة دامغة منقولة عن أحمد كن xëy آه، ملاك أرابتوتي نحن arab لما يوحنا نحن dégg li Eh, wax ak yow yombut <laughs> baax yooyu